rabbal ibaadi wala yamuutu laa yanbaghi liwaahu yaa kariim mooy maalikul mulk te mooy waxaabu xut ku ñuy digal ki lay qaxaaru moo ñu amal si coobareem di soowut te bu ñu fii jëlee ëllëg du laajte kon bismil ilaahi maa ngi soobu mandeng ma woykat ya xawoon ba jot seen may ya laay jéem a xaw ngir bëgg a woy barxaamu bañ xam ne mu doon nuy rasulillahi ahmadu jaw farnul te dellu xaatu te jéem a mi ndeef yi kuy saawaaje te wax ko olof ngir ñi nampul yaaram te réere ay mbiram ñu xam kuy waaja ndongoom yépp maa ngi leen di jaale xut bu ba dem na ci barxaam xaawi yàllaa ñu tànnaloon xalilullaahi te def ko muy imaamul awliyaa yaa rabba dem na moo rawoon ci diina kenn mas la gis ke ma ma gongo déglul ma wax la fam di xam ni mooy doon na rasuul cey baraam yawmal alastu la kuy maasam moo njëkk a wax bale ek naaw rasuulu mu dal ko way solal mantuk limaan cappal ko rankal ko garaatu xutb keroog la jiitu kullil awliyaa'i ruux yëpp naan bale xalilullaahi rasulullahi yar ko fa sellal ko nandal ko foofu xam-xamu diraaya ñu dal di koy xebal mu jàll laahoot ilaa mislahu billaahi maa ko hóolu leeram go xotti jàll pay jabaroot wala amee jalaal um fal ngay waaja ñu daal di jël ndam bi ngëneel ñu jox ko ku am ngëneel billaahi moo la leeram go xotti jàll pay malakoot fala matee ba motti musla manki moo donnu taaha mooy borom basiira ku ñëpp xam la min ka mas leeram nga melak jàll ijaadu maarifa lii moo waral kum yar nga nekk ab xaarif bam fa baxoo te di jëm si naasu ñu dénk ko sunu maam ji abdallahi ndeysaan muy góor gu mat gu ñëpp xam si diina moo boole man loog jëfoo sharia mu gàddu leer ga jëm jolof si mbokkam ñu jox ko sunu maam ji asta jànqa kookaa di soxna sarawoon si soxnaam jànqama raw na xëy na jël na ndam la maam Abdallahi dal di jëm si Saalum buuru mbayeen ba gis ko def ko xaadi nekk na Gambi nekk na Kër Samba sanc na Tayiba mooy dalu Barhama atum bi déew ba mooy lalu si aw rajab bisamba yawmal xamiis fil waxti xasri xutbu wàcci sooda kami aras yëpp riir billaahi guddi keroog la leer yëpp jolli lislaam di fecci ngir bégee juddoom ba mawlidohoo juddoom ba jar nay màggal mawlidohoo juddoom ba jar nay màggal képp ku dib jullit jugal ko ndax màggal ko muy màggal rasulullahi ku bëgg a tedd fii ba ñëpp xam laa nga jaari ajjana dugal màggal ko màggal ko mooy màggal rasulullahi te man giñ naa ko bi iznillahi ba samba delsi bay ba daal koy ngénte jibril a wax sa tur wa maam alaaji naan ko nang ko tuddee xalilullaahi ne kon da nga gis ci moom karamallaahu mu daal di koy tuddee xalilullaahi so yooya at la gis sa moom karamallaahu mu am fa ñetti xat noonam ya xeex ko ngir gaa yu baax ya koy andil hidaaya ñu daal di xëy kalaame waa nguur ga ñu koy fexeel se day la war na weeru ñi naan sëriñ Momar Wele fa néegi ñooro kookaa yëgal si mbir mi maam alaaji ñi naan taalibe pëlëm bañ naan gallaajo daraan sàmm nagam ya moo ko feeñal waaye man la ma wax barxaama moo ko feeñal sa booma at la njëkk a feeñal xarbaax cey saawaaji fil waxtil xasri day digal baayam ba si yow ma lax di ñas billaahi mooy waaja baayam ba dal di wax keroog ma ngom ya ñu jël bagaar ba delluwaat fa gàmbi noonam ya ñëw foog tey ba fa kenn ñu def lu ñaaw taal këram gaak jàkkam ja sax na fa fukki xat yu mat fa réewi gàmmi ndigal del si naan ko ya abdallahi waajal dellu ya abdallahi yàlla moo lay sàmm ñes boo demee dëkkal fa ñoom bul feggu looy def ñu gis ko kon daneen la féexal maam Abdallahi delluwaat woon ndongom yi ñu jël bagage ba del si waat si réew mi ñas nekk na dagga dem na réew yi bambuk ngir sàmm leer ga billaahi moo farlu mu sanci koosi comme ma mel ni waame noonam ya dellu ngembuwaat billaahi bam fa baxoo dal di sax fa Kawlak képp kuy ut ngëneel demal fa Kaolack képp kuy ut ngëneel demal fa Kaolack barxamaa ci sawaaji baaya nga mel ni jant njaboot ji ku ko gis rek sopp ko ngir taaram ba ñasi yu teg tuut lay xaafis te dégg alquran baraw kuy aalim ñu teg sa ñetti xat baayam ba feebar tëdd ko ñetti fan feebar ba yokk mu daal di xoo jaboot ga ngir dénkaane xam ne de xel bi mat na léegi mu faatu mu woo xaliwa dénku ko njaboot gi alxaaji Baabakar la jox jàkkam ja mu daal di jël téere yëpp jébbal alxaaji Muhammad Zeynab nan ko dencal kuy sàkku alquran ma jox ko kaamil kuy sàkku xam-xamal ko bul ko gàntu ña seddale nay mbiram bokk nekk jot cëram mu des sunu waaja barahama ci sunu waaja mu nekk ba ñëpp dem mu daal koy xoo ca ne ku wanag ba daal di tëj buntam ya lañ wax ca foofu lañ ko wax si mbooloo yàllay ki xam xay bu ta moo ko mboota dexal ba mat naa baay ba daal di faatu ndongom ya muuru soxnam ya muuru ndongom ya ku jaaxle barxaama dal di fay de ak magam ya ñu jël yóbbu koo si jox ko daara ñaar fukki nga daal di taalif ruuxul edeb téere ba jommal naare ñas fanweeri xat yu mat la daal di feeñal faydu ngir xam le sell ak rabbana borom ba sëriñ mbay rakkam te moo di taawam moo naan ca leer ga man di mbir ma weeru mam habdu ñang cheikhu omar ñoo xaaciwu si aw korite coow la far ni gàññi mbokkam yëpp mer ba daal koy génne keroog la xendu saam ngir sàmm diine fa lañ julee tu subaar keroog bàyyi du xutba ñas kàddoom ya ay xalam si xol yi muy jàng alquran ba wax bii laaya laa taxaafu wala taxzanu lii moo waral keroog lu mu di coona du xeetu pël du séeréer du lawbe teew nañ keroog fasaam billaahi jaayante ñes nandal nga réewi siin nandal nga saarum nandal nga waa jolof ba jàllu fuuta nandal nga kaamaas nandal waa gambi ba soose saak jolaa yëpp mandi li wor na Cheikhu Fay fa néegu Banjul tafsir ke baa tey alaaji ma mbay ga xotti jàll réewi Muritani naar yëpp sàqi ndaw xebal fa koosi ka njëkk a ñëw ku kaadu muudul xaafis ñaareel ba cheikhaani ala jihaadi ba ñuy janoo min fa néegu koosi ñu bokk sar xolle te naan ko maalu laa fii yaa rasulillahi amul sikk ne bàyyi yow yaay rasulillahi ñu far di ñëw gàmmu ak i ziyaara di andi ay hidaaya te ay sharif lañ satub rasul di jox ku hidaaya moo ma xamal ne min kara kay waaja ñas tuubal na turka tuubal na muusi tuubal na ay kat kulli ki jarama tuubal na xeeti xeet kenn mënta lim mokkal na réewi xawsa wóor na zaani jàngal na ay aalim yu jaaxal misra sigil na der bu ñuul sellal na diine naatal na néeg bu masta am naa tànge fal na ku maam ja masta digg daali yaani yallaahi maa la wóolu ñas narmel nga nooni diine kenn yëngootu li fi tëhoon ñi daan jigaate xuutar yaa ko amal te sox jibul yaay waaja ku weddi lii demal ba néegi commi nga daal di gis la min ka def nga waaru kenn mosu faañi me taxaw di kabaar te xel dajul sax jàngewal quraan ñuy jaamu ay xërëm di tuuru ay jalañ te sax si mooy ba faw lu ñaaw la min kaa fa dem soirée seen xaram yi mabal jalañ ña daal di sampu daara fa jàkka ñuy sikkar noddu xel dajatul xaram ya billaahi mooy waaja kon alhamdulillahi nañ sant rabbana te gëm dogal ya jéem a muñ nattoom ya jullit bu am nattu na gëm dogal ba te muñ te tuub te dellu ci boroomam nattub jullit day yokku ay maqaama seetal ma lewliya iyaa lewliya kenn musu fii ñëw di liggéeyal boroomam te àndul ak nattu ba jot dogal ba fokk nga jaar ci nattu ya balaa ya ci ko ba jot ngërëm la boole gi mayam ya diggante aadama dem kuñ ma sa yónni jaar na fii billaahi nañ jéem a dëddu adduna mbonam ji jot la hóolu waa ji lamboo ay xor la ku topp taaram mu yen lab doo sa jëlee njëriñ doo sa jëlee njëriñ xamul ku baax bëggul ku baax kàccoor la li muy rafet rafet biram lu jeex la yow laa xarit wattul ma yii ma lay tere day màbbu jëf lorab du li du ñaaw la wattul ma rambaaj bàyyil ma kañaan ak wax ju bon bul wut xarit ba àndandoor buy def lu bon wattul ma rëy bàyyil ma jaw ak ñeete gen man la am dara su dul boroomam doylul si rabbana borom wërsëg ya lum la joxut soo ko bëggee daw coono wattul ma nay bàyyil ma wurut xaraam na màndul ci lépp loo ñàkkul loo ñàkkul ba moom ko déglul bu baa baax te roy ci ma lay digal ci xeetu mbaa soo ko defee mooy li lay jubal fexee la tuub te dellu jéem a tarbiyu soobul si yoonu góor yi mooy li lay jubal fabal kurus gi farlu jëm sa jàkka ja amal si képp kuy jullit ab teggin fonkal ma alquran di yar xadis loo sa xamul laajal ko xam mu wax la foo mën a toll yaa ngi den ak xaalim bu ruus te bu rëy lu demal nga laaj ko te lépp loo ci xam si xel jëfoo ko sox si ba faw mooy si bul ko neenal mandul si dëkkandoo bul seet ay gàkkam te bul ko ŋàññi soo amee defal ko lii la ñu sunu baay ba daan waxtaan ba xëy ne meng def na ni moroomam bu kenn jooy nañ mu taroy ci ay ndigalam ñun ñi fi des faw faw daneen ko fekki ñas wan nga ñu yoonu mbaax diggal nga ñu ay sartaan ku jàddul jengul billaahi doo rëccu kon jaaraama ne leen jaaraama kenn manta lim lim fi def si diine ñas gumba yow rek xëyoo jaaraama yal nañ yàlla buur ba fayal liggéeyam si barkemullah si barkeleen amina bi xurmati siddiqi wala waaruqi bi xurmati nuurayni wa sibtayni yal nañu yàlla xuutu ci njabootam ci góor ñi ak jigéen ñi ak ndongoom ya yal nañ des ak barkeem ba ba bañ koy fekki yal na yàlla mottali sembam si diine taxawlu nañu tey sàkku ñaan siim fi ba ndax yàlla def mooy mooy muriidu waadi jaw julil si mustaa bi ñëpp hóolu ndax yàlla def sa bayit yi muy fatku suma salaatu ala almuxtaari wa alihi wa sahbi al ahyaari bàyyi nuuru ñas laay way moo de xaw su diine bi tey bàyyi nuuru laay way barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan